طيبة طابت لطيب أصولها ومدينة رب السماء سماها ay ca dama jaax jaaxle jeex na ci diwaanu Sénégal ak li ko wër ñu ni nax lan ñu ni ku xool liggéey bu rafet bii ku xool liggéey bu muccub ayub bii du kenn ku ko mën ku dul kan Babacar caroleur professionnel Babacar caroleur professionnel nag di xale boo xamante ni dafa mën li def xoolal ma liggéey bu rafet bi xoolal ma yii xeetu karo xoolal ma yii xeetu design xoolal ma yii xeetu maanaam liggéey bu set te muccub ayib kookoy kan kookoy Babacar caroleur professionnel la nga nekk ci diwaanu fi nga xam ne moo di Médina Sarr rawatina tamit diwaanu fi nga xam ne moo di Canaba Seck bàyyi wul fenn fépp lay dem ci diwaanu Sénégal ndax métier karolam moo ko laaj képp koo xamante ne da bëgg sa kër rafet karoleer la ko ndax am na matériel bi efficace na tey mën na li muy def tey liggéey bu set te mucc ayib xale bi nga xam ne nag ndeysaan moom moo mën li nga xam ne moo di liggéey bii ngeen a gis ndeysaan ci vidéo bi koo koy kan koo koy Babacar Karoleur ñu gën koo xam ci lan BCP dégg nga maam ku bëgg a jot Babacar Karoleur da ngay woote ci numéro bii di 77 230 80 70 ma wax loola boo jotul bu ci numéro boobu nga woote ci numéro bii naan 78 403 31 97 dama daw leen gaaw seeti Babacar Karoleur Babacar rek ci xale bu la karolalee rek nga kontaan daw leen gaaw ku yéex ñàkk ndax nag day fees à tout moment def leen seen commande ndax teg. ومدينة رب السماء سماها